bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi wa salla abada ala allazi bihi lana alhuda bada sayduna muhammadin wal ali wa sahbihi sawin na wali wali barke borom tayif bokki julit yi bokki taalibe yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu noo ngi ñaanal Serigne Touba Serigne Mountakha Bachir suñu borom yàggal ko fi lool Mbàkke te may ko wér dafa ko njabootu Serigne Touba gépp la ko dal Cheikh Mouhamadoul Moustapha ba ci Cheikh Mouhamadoul Moutada am nañu mbégte nag tey daje fii ci ëttu Cheikhul Khadim bi di kër Serigne Bassirou Mbàkke moom Cheikh Abdoul Khadir noo ngi ñaanal Cheikh Ahmadul Muxtaar bi nga xam ne tey mooy caabu dëkk Cheikh Modou Moustapha suñu borom yàggal ko fi loolu te may ko wér di ko ñaanal tamit sëriñ Abdourahmane moom sëriñ Cheikh Fatma mi nga xam ne ab taalubeem ab dongoom moo waral tey jotaay bii muy sëriñ euh, Pape Fall noo ngi ziar ñëpp di ziar mboolem njabootu sëriñ Tuubaa gi fi teew yëpp waaye di jël nuyoo bi ak ziar bi nag di ko teg jëmm ji nga xam ne mooy kilifa jotaay bi te yor kàddu sëriñ muy sëriñ Bassirou Mbacke ibnu Cheikh Abdoul Khadir noo koy ñaanal yàlla na ko fi yàlla yàggal lool Mbacke te may ko wér di ko yàlla ci mboolem kilifa yi nga xam ne teew na fi Cheikh Mouhamadoul Badawi moom Cheikh Amadou Fadal yabal na fi délégation liggéey bi ci loxoom la tege njabootu sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma sëriñ Abdourahmane Gaynde Fatma yabal na fi sëriñ Basirou Ñaan Cheikh Mbacke Mboob ak sëriñ Ahmadou Ndiaye Ngeeraan famille sëriñ Ibra Sarr Njaañ buntu kër yëpp a ngi fi xalifa bi sëriñ Sidi saar mi ngi fi waa kër sëriñ Modou Sarr ñi ngi fi waa kër sëriñ Baye sëriñ Sarr ngi fi waa kër Mbacke Sarr ñi ngi fi waa kër sëriñ Fallou Sarr ngi fi waa kër sëriñ Mor Diarra Sarr ñu ngi fi ñoo ngi ziar baax tam famille waa kër Serigne Abdoulaye Diakhab Diaw Paxa ak famille moo du Diaw Paxa noo ngi ziare waa kër Cheikh Mouhamadul Amine Diop Adagani di ziare baax njaboot gi fi teew la kër Serigne Ali Fall Mbawor famille Serigne Modou Fall Nayde la ko dara ci Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma mi nga xam mooy xalifa bi ak soxna Fatma nga xam ne moom soxna Fatou Fall mi mag ñi soxna ñoom ñëpp ñu ngi fi waaye tamit waa kër Serigne Modou Mamoun Niang Serigne Cheikh mbakke ñan di leer ci moom mi ngi fi toog dajale tey mooy fas yéene teg xeer wu njëkk barab bu am solo bu ñuy wax miftaaxul naa tur wi nag mi ngi bàyyi ko ci euh, gàmm làmmiñu Cheikh mu Mountakha wu tedd woowee muy centre d'accueil boo xam ne nii war naa doon téeméeri néeg ak ñeent fukk ak ñeent ak ñaari suite muy dalukaay yoo xam ne kilifa lañ koy beral la waral yitte ji nag mooy dalukaay yoo xam ne tey hôpital bi nga xam ne moom la jàkkaarlool ñu war ko faa def incha allahu rabbi lépp lu ci ne ci turu Serigne Touba la terrain bi turu Serigne Touba la mu Mountakha moo joxe turu barab bi teg ko ci loxo si Ahmadul Badawi téeméeri néeg la ak ñeent fukk ak ñeent ak ñaari suite waaye loolu lépp bu pare li ko war a mooy centre d'accueil la képp ku ñu hospitalisé nga ne ci hôpital ba di faju sa loxo juutu sa ginnaaw amoo fenn euh, foo xamante ni nii mën nga faa dem foofe ngay nekk ba sam faj àgg nga dellu ci sa yitte kon loolu lu kawe la liggéeyal Serigne Touba la ginnaaw bi ñu fàggoo hôpital Cheikh Ahmadou Khadim loolu ne ki koy amal dongob Serigne Touba la bu xeebu boo xam ne Cheikh Modou Moustapha rek la teg fi kanamam muy Alaaji Pape Fall ami bitik ànd ko ak njaboot gi yëpp muy mboolem njaboot gi nga xam mooy njabootu ak ñi xam ne lim naa leen léegi jotaay bi ko tudd laaj te eh, jamono ji tolloo ay yitte damay ba teg foofu sama loxo kañ dañu koy def le 3 février tolloo ak ñaar fukki fana ak ñaar wala ñett ci yoor rajab fee nga xam ne moo nekk ci hôpital Cheikh Ahmadou Khadim ci yoonu mesere bi incha allahu rabbi bu 11h jotee boobu laay joxe sama kàddu nag ki nga xamante ni moom mooy euh, Serigne euh, basiru Ñaan mu yëkkati kàddu ci turu kilifa ak sëñ Pape Fall muy Serigne Abdourahmane Mbacke Gaynde ma mi nga xam ne moo fi yebal aoudu billahi samii al alim min iblis ashaytan arrajim bismillahi li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamualeykum mbokki taalibe yi ñoo ngi yëkkati sunu kàddu ci ndigal ndigalul sëriñ Abdourahmane Mbacke moom sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma di ab xalifaam ñu di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér ak njabootuk sëriñ tubaak gépp mu yabal nu fii tey nag ci waajuram léppam mu Cheikh Mouhamadul Bachir moom sëriñ Abdoul Khader ngir ni ko sëriñ Cheikh Mbacke bu waxee léegi ci jëf ju rëy ju màgg ji nga xam ne incha allahu moom lañuy ñuy war a tàmbali le 3 février sëriñ Abdou nag wax ne suñ ñëwee nañ jël kàddu ci turam waaye itam jottali loo xam ne ñëpp xam nañ ko waaye itam nag ñu fàttali ko ndax alxuraan moon wax ne na ngeen di fàttali ndax fàttali na jariñ ku gëm. muy jëf jure ji nga xam ne euh, kenn ci moom koo xam ne ay juram ñoo àndoon ak i juram te mësta teggi tànk seen mësuñoo teggi seen tànk fañ ko teg loola itam di loo xam ne alxuraan moo ko wax ndax moo wax ne minal muminina rijalun saddaqu ma ahadullah alayhi fa minhum man xadaa naxbahu wa minhum man yantadiru ma baddalu tabdila muy wane ne Pape Fallé mi boutique mii nga xam ne suñ borom da leen a boole bu yàgg boole woon wayjur yi mu ànd ak ay wayjuram wa ànd ak i magam ba mu nekk fi mu ànd ak moom mu di leen jottali rek Pastef boo xam ne xam na ko ci moom te loola nag mooy la fi maam yi bàyyi woon rek béy di ñu tàmbalee léegi euh, jataay bi wane na ne li Serigne Touba ñaanoon ci béy yi lépp sunu borom defal na ko ko. ndax itam loolu mooy bàyyi fi ñoo xam ne la nga daan def ci lu baax ba ñu ñëwee dañ ko àggale dañ ko gën a dañ ko gën a rafetal wolof njaay nag nee na waxtu woo jiyee te say ba réer la nee na négal ba mu taw nee na su tawee rek nga xam fa nga ji woon nee na kon nag nji mi sax na mi ngi ñaan mi ngi koy ñaanal yàlla nag sunu borom subhaanahu wa taala mu dolli koo jàppale ndax kat lépp loo xam ne war war na ko rek mi ngi koy def te it soññu ko ci dara ayiwu ko dara itam loolu ak taalube rek moo ko man nee na kon mi ngi koy ñaanal di ko seere jullit yépp di ko seere taalube yëpp di ko seere mbokk yëpp ne ku mu gërëm la te ngërëm lii mu am ci moom itam yàgg na koo am ndax amoon na ko ci ay magam amoon ko ci ay waajuram tey taxu koo dégg tànkam loolu la sëriñ boo xam ne nañ leen ko jot li wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ginnaaw bu nu sante yàlla sunu borom julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant nag. Mawlana Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul di siyaare siyaare bi nag ñu ngi koy teg ci ak nuyoo bi muy nuyoo ay bokk waa kër Cheikh Ibrahima Saari Njaañ ñoom ñëpp seenum nuyoo dañ koo takk jox ma ko ak waa kër sëñ Abdoulaye Jaw Jaw ak waa kër sëñ Malamin Jóob ak sunu waa kër sëñ Mat Jaw Paxa ak waa kër sëñ Aliou Fall Mbawor nga xam ne ñooñu ñëpp seeni njaboot ñu ngi fi ak waa kër sëñ Modou Mamoun Ñang sëñ Basiiru Mbàkke moom Cheikh Abdoul Khadir Mbàkke ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di nuyu Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbàkke moom mi nga xam ne moo la jox kàddu gu yoon wi nga mate ko sëkk di ñaan Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké ak njabootu sëñ Tuubaa gépp yàlla nañ fi yàgg te wér ba li nga xam ne moom la bëgg a liggéeyal sëñ Bamba mu ànd ko ak mboolem njabootu sëñ Tuubaa gépp gannaaw bu jàllee nag wax ji mën naa bañ a gudd li nu fi dajale rek ñu ñëw fii noonu ñu ko limee léegi rek ñooñu ñëpp nag ñooy ñi nga xam ne ñooy bokki Pape Pape kon ñu ngi siyaare sëñ Abdourahmane Mbacké moom sëriñ Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma nga xam ne mooy sëriñ Pape Fall nag day sunub jarbaat nun waa kër Cheikh Ibra Sarr ñii muy seen di seen nijaay muy seen jarbaat yàlla dogal nag liggéey bii nga xam ne moom la fas yéenee amal moom nag xamal na ma ne ma defu ko ngir bëgg a liggéey ndax képp koo xam ne dangay liggéey da nga caa yaakaar ak ak pay nee da ko def ngir ak da ko def ngir ak sant jëf ji nga xam ne moom la tàmbali ku ci yàlla andee nee da def ngir ak sant te ku xam ne la in shakartum la asidanakum ndax xam na ne kat sëñ Tuubaa moom maanaam maamam yëpp liggéeyal nañ sëñ Tuubaa liggéey boo xam ne liggéey bu nangu la ba xéwalee mooy baawan ba tey ji ak agsi ci moom bay liñ fi tudd léegi di jasaaka moo mag yoon wi kon Ibra Sarr Njaañ ba muy ànd ak sëñ Touba booba maanaam dégg nga rabbi ashaabaka bil himma wala tarabbihim bi darsi boobu taxawagul nangu ndigal moo ko may abiyaat yooyu kon nag sëriñ ba Mbàkke e ñu ngi lay seedeel ne Pape mii ak ay bokkam yi mbokkal soxna Ami Sarr yëpp njabootu Cheikh saar Njaañ sant nañ ko gërëm nañ ko ndax kër Ibra Sarr Njaañ tey ñëpp ñëw nañ sëriñ Siidi saar ma nga xam ne mooy xelif Cheikh saar Sarr Njaañ moo bëggoon a ñëwal boppam ñun ñoo ko xamal ne ko rek njaboot ji bu ñu demee rek doy na kon bu ñu tuddee rek ñu xam ne sëñ Xalil saar mi nga xam ne moo jiite kër Baye sëñ Sarr moom itam ay rakam ñu ngi fi ak doom waa kër sëñ Mbacke Sarr moom Cheikh Ibra Sarr sëñ Ebo Sarr ma nga xam ne moom bu mag ca kër ga moom it tànn délégation ay ay njabootam yëpp ñëw nañ waa kër sëñ Falilou Sarr moom Cheikh ñëpp ay doomi Cheikh Ibra Sarr lañ nag waa kër moom itam sàkk na maanaam délégation boo xam ne ak njabootam ñëpp ñu ngi fi ak kër sëñ Mor Diarra Sarr gi nga xam ne mooy caan mi nga xam ne sëñ Mor Diarra saar mooy jur soxna Ami Sarr soxna Ami Sarr nag soxna Xadi Jaw mi ko jur sëñ Abdoulaye Jaw moo ko jur Jaw ak sëñ Mat Jaw paxa ñoo bokk lépp kon bu ñu fi tuddee kër sa kër sëñ ma Lamine Diop Dagana ku ne xam ne ne soxna umi jaw moom la joxoon sëñ ma Lamine Diop Dagana kii ab xalifaam actuellement mooy sëñ Moustapha Diop ma nga fële ca Njaareem waa kër sëñ Mourou Mamoun Niang si yërëb teewaay itam looloo ko waral ndax soxna maam xarit Diop ba ca kër sëñ Modou Mamour Niang sëñ Modou Mamour Diop moo ko jur kon maanaam sëñ Assane xarit Diaw mi nga xam ne moo tax ci sëñ Cheikh Mbawar moom sëñ Aliou Fall Mbawar soxna si jógee Thiarène sëñ Aliou Fall Mbawar lañ ko jox sëñ Assane xarit Diaw ab taawam ma nga nee kon teew gi fi Aliou Badara teew teewoon na fi njabootu Cheikh Fall yëpp macha allah macha allah kon daal la ca des rek. mooy sëñ Bas na ko ñaanal ak sëñ Abdourahmane te it pap xamal na ma ne ma bi sëñ bi door toog ci xilaafa gi moom sëñ sëñ Mountakha nee ko danaa la dimbali danaa la dimbali. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sëriñ Mouhamadul Bachir nee mi ngi nuyu bokki julit yëpp ak bokki taalibe yëpp. nee na mi ngi ñuy jottali nuyoo sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha. mi fii sëriñ Touba di ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér sunu borom it dolli ko kattan akuk wér ba mu mottali liggéeyub sëriñ Touba bi jëme ko ci bokki taalibe yëpp nee na mi ngi ñaan bu amee lenn loo xam ne am xelam faay na ko rek ñu jéggal ko ndax walla xadd xahid na ila aadama min xablu fa nasiya loolu moog doomu aadama ñoo ànd doomu aadama dafa mën a fàtte kon mi ngi tàmbalee nuyoo bi rek ci njabootuk Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ ñi nga xam ne ñoo fi teewal Serigne Sidi Sarr may xalifa ba te njaboot gépp nag maase teew kër yëpp teew nañ di leen yóbbante ab nuyoo ak cant ak ngërëm ndax yéen kat Serigne Saliou da wax ne yéen yéenay njiglaayul yoon wi moo tax ñaare kër gum masa sañc sanc Serigne Saliou da wax sëñ Basiirou saar na ko bu ma sañoon nga jiitu fa ndax yéen njig njiglaayul yoon wi ndax ñoom kat ba ne ànd ak Serigne Touba seen maam booba yoon wi taxawagut de booba yoonu murit amagut. sëñ Ibrahima Sarr nangul sëñ Touba lool nee na loolu day gudd ci jataay bii waaye nag yàlla def na ba nga xamee ne sunu baram wax na sëriñ Touba ne ko fasdah bi ma tuumaru ca ba mu waxee rabbi ashaabaka bil himmati wala turabbihim bi dars Cheikh Adama Gueye moo njëkk a jaayante ak sëriñ Touba. su ma juumut it Cheikh Ibrahima Saar Njaañ moo ca topp kon moom moom de yàgg na ci sëñ de njabootam gépp itam fasteef boobee rek ak yoon wooba ak doxin wooba ca lañ nekk bëgg sëriñ tuba yamale wun sëñ Tuubaa ak dara seey nag ci biir sëriñ tuba bëggit njabootuk sëriñ Tuubaa gi ñi jas des muy njabootuk sëñ Abdoulahi Jaw Paxa ak sëñ Mut Jaw Paxa ñi nga xam ne ñoom ñii ñoo ànd ak njabootu sëriñ Aliou Fall Mbawar tudd ngeen ko léegi Cheikh Ibra nag ñëpp xam nañ ne mu demee ak sëñ Touba sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana moom la sëriñ Touba mujj a jox ndigal ca xutbatu wam sa sin ak njabootuk sëriñ Mouhamadul Mahmoud ñang mii sëñ Modou Mamoun Niang ku ne xam ni mu demee waaye juram ak Cheikh Mouhamadul Fadal waaye nag mu nekkoon ci kër sëñ Touba bàyyam jeexal lépp ci sëñ xam naa du ñàkk lu ma fàtte sax waaye li ci am solo daal kenn ñëwu fi ngir bëgg rek ñu lim la ku fi ñëw rek Pastef ba démb ba moo la andi loolu képp moo leen yëkkati ndax yoon wi moom. dama naan loola ci naqari jógewul te cosaan ya kon nag ci turu Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha mu teewaal moom Cheikh Bassirou nag teewaaleel fi kilifaam di Serigne Ahmadou Mbacké Badawiyu moom Cheikh Mamadou Fadal nga xam ne moo waroon a ñëw ñu ànd waaye nag moom wa yusaroona ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasatun noonee lay doxe moo tax danaan boo teewee rek teewaaleel nga ma waaye yàlla dogal na liggéey bii bi ko sëñ Pape Fall xalaatee tolloo ak ñoom seen kuréel googu ñu taxawal sëriñ bi boole leen ak sëñ Ahmad Badawi yu ñu tabax ay tabax yu bari ca université ba ca biir loola nag ca la moom sëñ Pape Fall mii xalaate xalaat bii sëriñ Ahmadou Badawi gunge ko ci xalaat bi ban agsi fii tey bam àgg ci sottileti tam war koo tàmbali moom sax bëggutoon kenn yëg ko dana woon da koy def rek ngir sëñ Touba ca lool dong moo ci am solo waaye jëf moom sellal gi moo ci am solo waaye jëf joo xam ne bu ko ñëpp déggee man caaroy loola siiwal ga wàññiwul dara kon ñi ngi lay gërëm bu baax rawatina nag ginnaaw ba nga ci amee ndigalul sëriñ bi li baax baax wa aatul bu yoota min abwaabiha da ngaa dem ci sëriñ muy sëñ Abdourahman nga laaj ko ci ndigal sëñ Abdourahman nag moom pas seefam akuk taalibeem akuk baaxam akuk bëggam sëñ Tuubaa ak fonk kilifaam kenn mënu ko caa jiitu na moom mii di sëñ Basiru wóor na ko ne bu tàgguwutoon sëñ Abdourahmane it day bëgg ca def rek nee na loolu la yàlla def ci moom kon ñi ngi lay ñaanal bu baax ndax xam nañ ne baat bi wala fii de wax naan lu juddoo ci am tàgg bu naawut jaaxal ay bokkam waaye sëtub Seex Ibrahima Sarr Njaañ bu amee dogu gu mel nii ci yoon wi nee du bett kenn te liggéey bi rëy na de ndax loo xam ne la koy liggéey mat na milliard ak genn wàllu milliard mënoon nga koo def faneen waaye nag fii nga ko dugal moo gën fopp ëpp solo ndax sëñ Tuubaa kat wax na sëriñ Masamba Diop Sam na ko Masamba mu ne ko Mbakke mu ne ko baa xam nga ne man mii ak daam saan daam saan mooy dencukaay gu mag mu ne ko kon de Mbàkke ñu fas yéene doon ay lantinoor mu ne ko loolu de képp koo xam ne def nga ko buñ demee ba fa nga xam ne kenn mënu faa am ak diw muy ndénkaan la nga defoon ca ndaam saan ga la nga ma dénkoon nee na danaa la ko jox ba nga xam ne daam saan ga seenu ko moo tax sëñ Abdou dadaa wax ne sëriñ bu nuy jox addiya te du joxe addiya daa mel ne ku yor sa waxandeew gaal ku fóot ay yéreem ba mu set mu jox la na la dencal ma bañ àgg nag ci bis bañ war a daje ku nekk ñëw na ana anam mala maa la dénkoon nga yëkkati joxe ba mbubb ya jeex bu fekkutoon nga def sa mbubb ca gaal ga xottu gaal rek ngay dese doo am loo waaj kon ñëpp sëñ ñi ngi lay ñaanal jëf ji nga xam ne dafa ànd ak hôpital bi ndax sëñ mu Cheikh Mouhamadul Mountakha ku am yitte la ndax li sës ci hôpital bi dafa amoon ay boroom yu ko moom yàlla def docteur Sourang di ku bëgg dëkk bi mu ñor ko lool xam naa ne loola ca maamam la ko jëlee mu wax sëñ bi na ko la sës ci hôpital ba daal dama cee amoon xalaat bu rëy mooy jënd ko. ñu dolli ko ci hôpital bi ndax dafa manqué fu ay kilifa mën a nekk nga xam ne bu ñu yokkee hôpital bi yokkee ko foofa sëriñ bi daal di yónnee Cheikh Mamadou Bassir juróom fukki million ma jënd ko jox ko ko ba miire nañ ko ngir xalaat loolu rek kon bu yàlla defee moom mii la sës ci hôpital ba mu jënd fa terrain bu mag def ko ci turu sëñ Touba. fas yéene fa tabax lii ngir dimbalee ko ñi nga xam ne ña ngay ñëw ca hôpital ba ca amuñu fuñ dëkk te xam ngeen ne hôpital bi buñ la waxoon la fay dugg par bis doo ko mën a gëm ndax ngir bari te day yokk ndax dëkk bi moo màggee noonu ndax dëkk boo xam ne at mu jot la cay màgg di ca dolli ko la cay dolli ko chaque année dana mat lu mat juróom fukki junniy nit ci liñ déclaré te liñ déclaré wut moo ëpp kon Touba ni buñ ko dut gàttandu yàgg yàgg day mas am jafe-jafe kon nag lii gàttandu ñaanuk Serigne Touba képp la kon ñi ngi lay ñaanal kattan gi nga ba man koo jëf balaa nagani sii déwén Euh, yàlla nay asakay li ngay am ak li nga ci yéene it liggéeyal ko sëñ Tuba yàlla na ko sëñ Tuba nangu làqal la ko it fa yàq yëgut wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf mbokk yi noo ngi rafetlu teewaayu jëwriñu Cheikhul Khadim ca Ndakaaru muy sëriñ Mouhamadul Mbacke yu fay yàlla na ko yàlla fay noo ngi sant baax tam ndawi Cheikh Mouhamadul Badi wi tàbbi nañu ci jotaay bi. di nuyu baax soxna Fatou Mbaye moom sëriñ Abibou moom Touba ca kanam di ci sëñ Pape Fall nuyu njabootug boppam muy soxna ma jigéen ak mboolem soxna yi nga xam ne ànd na ak ñoom xew ko baa ngi noonu pose première pierre centre d'accueil muy këru dallukaay jàkkaarloo ak foofu ci hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim le 3 euh, février incha allahu rabbi bu 11h jotee ñu ngi ciy woo ñëpp bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu ñenn bàyyiwuñu fenn yàlla na ñu ko toogee jëf appel bi yàlla na ñu ko toog inauguré ci barke Cheikh Mouhamadul Moustapha asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatu amin amin amin amin amin